al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamualeykum waa ibadatu wal xidma man la xadd xabaan ñi ngi lay aussi sant di la gërëm di la wax aussi ni xëy na luñu ñàkk-ñàkk jot tamit daal bu amee question yu ñëw tamit ñu war ci tontu dañ ciy kontaan lool parce que euh, li ñuy jariñu ci groupe bi defe naa ni mu ëpp fopp ndax euh, euh, tontu yi ñuy tontu ci wàllu diine ji ñun aussi ñu ngi koy suivre bu baax dafay xëy suba addis yi dañ koy suivre jàngale bi tam dañ koy suivre ñun tamit suñu contribution loolu la tamit ci wàllu santé ku ci am laaj yooyu tamit ñu tontu ci dañ ciy sawar lool. bokk bi wax ci wàllu euh, gàddaam day yëg gàddaam moom mooy rat ci tubaab mooy euh, day faral di nekk ci côté day nekk ci côté gauche bi ci suufu euh, côte yi mais nit mënu koy làmb di ko daj lu dul ki nga xam ne dafa feebar mu rëy ba dépassé mais du luy déplacé wu aussi parce que niñ koy faral di tudde ci olof ak niñ koy yaakaare souvent du demee noonu donc nekkul luy déplacé wu booy daj ci sa biir loo xam ni organe plein lañ ko tudde ci tubaab daanaka du loo mën a làmp di ko daj parce que li wër butit yi lépp ay ay euh, tuyau la loo xam ni kenn mënu ko làmb daj ko boo dee seet mën nga ni bii biiru nit euh, mat na juróom benn ba juróom ñaari mètre tuyau yoo xam ne dañ ko euh, dafa laxasu noonu rek empilé wu comme yow moo lemoon benn raakol rek teg ko donc lekk gi da koy topp mu koy mooñ muy jàll comme jaan ju modd rek di topp di ko topp di ko topp ba la mu soxlawul mu sànni donc moo tax ba bu fekkee nit koo xam ni dafay faral di seere walla dafay faral di li ñuy wax am ay fekalum mën na jékki-jékki di mel ni dafa daj dara ci biir bi mais bu ko dajee fii ëllëg mën na ko fa bañ a dajaat donc loolu souvent ci affaire reesal ay affaire boutique yi loolu la joteel mais jotewul ak organe yi donc rarement ngay gis organe boo xam da nga ko cee mën a daj mais lu mu ci mën di nekk rek bu la jaaxalee wala di la indil di ay métit souvent boo demee ci docteur bu la seetee bu ci gisul lu ko wóor da lay demander échographie te boo ko defee moom dina la ci wax lu leer bu boobaa di nga xam ndax da nga am problème mu colopathie fonctionnelle nga xam ni sa reesal moo doxul na mu ware bu ko defee ngay am problème mu liñ naan <coughs> problème mu digestion biir bi boo làmbee mel ni dangay ngay daj dara fekk ni loolu lekk gi la lekk gi mooy déplacé wu donc li ci gën a wóor daal mooy boo gisee lu mel noonu ba ñu nekk di wax ay gàddaamak yooyu parce que ñun souvent li ñuy tuddee gàddaam ak liñ koy wax bokkul ndax rat bi fa mu nekk moom du looy mën a làmb di ko daj te du looy déplacé wu donc li gën a wóor mooy dem seet docteur mu consulter la bu ko jaree mu demande échographie pour am lu gën a leer xam naa après nañ jàllaat ci beneen question bi maa ngi dellu siwaat docteur Ndiaye Diop ndaamaatu ci ki laajoon laaj bi di wax ci ni dañuy diggale souvent ngay naan ndox mu bare ba moom day faral di naan mais fi toll li koy dikkal mooy tuur ndox buy jege te bu demee tuuti lay tuur te léeg-léeg daf ko yàkkamti ba bu yeexee mu yegg ci kawam loolu tamit Euh, damay wax ni ndox mu bëri baax na ndax ñun lu bon bon ñaari litre jëm kaw war nañ koy naan par bis ndax te surtout jamono yi nga xam dafa tàng ndax sa yaram li mu soxla ci ndox fokk nga koy jox bu jëlee li mu soxla nag la mu soxlawul moom lay doog a bàyyi mu dem ci tuur ndox bi ak ak yooyu ndax ñaq yeeg li muy soxla mënoo ko contrôler tuur ndox bi la mu soxlawul daf ko ci yóbbu donc bu tàngee sa tur ndox dina wàññeeku malgré que di nga naan lu bëri te naan lu bëri bi fi mu toll nii moom nécessité la ndax dafa tàng te sa yaram mi ngi fonctionné war nga ko jox li mu soxla ci ndox gaa moom bu fekkee nag da nga am problème boo xam ne jotewul ak loolu ndax li nga war a naan moom boo ko naanee yaram bi du bàyyi lu lul la nga xam ni soxlaatu ko donc bu fekkee tuur ndox bi dafa jege yoon souvent li koy indi mooy ba nga demee di tuur mu am jafe-jafe ba tuuroo lépp donc mu gaaw a feesaat day yomb donc nga delluwaat wa illaa nëq bi moo am dara lu fa nekk comme bu fekkee dafa am infection di wax cystite nga xam ni nëq bi day mel ni gémmiñ gu chauffé loo ci laal rek mu saf mu dem déclencher tuur ndox parce que bu safee day mel ni comme ku bëgg a tuur ndox ànd ak yàkkamti boo eggee boo yéexee mu tuuru sa kaw te boo demee tuuti lay doon loolu parce que bu fekkee ni naq bi dafa suufe euh, donc lu fa laal rek day mel ni déclenché saf-saw te boo yeggee comme daf ko déclenché mais barewul parce que saf-saw bi li ko waroon déclenché moom mu dem ba tollu niveau boo xam ni fees na nga daw saw mais bu fekkee ni dafa am inflammation chauffé comme gémmiñ bi chauffé lu fa laal rek bu tuuti ndox laalee fa sax day déclencher sax saw boo demee nag saw tuuti euh, ba mu jeex dina jeex moom gaa moom mante tuuti lu fa nekk rek daf koy bëgg a génni ba keroog loolu ñu koy faj wala sax léeg-léeg mu dajal boppam bu fekkee mettiwul woon torop te loolu aussi mi ngi dépendre ci âge bi bu dee cystite souvent ñi nga xam ni ay moins de cinquante ans la jëm suuf loolu peut-être mën nañ xalaat ni cystite la parce que tollooguñu fu ñuy amee problème wu ay seere yu mel ni affaire prostate ak yooyu mais mag mi nga xam ni ëpp na 60 ans wala jege na ko kooku lu ko mel noonu bu koy dal souvent day dem consulter ji pour ñu xool prostate bi ndax di ci ëpp mooy tour ndox du jeex tàkk donc gaaw a feesaat mu yebalaat la mais bu àndee di saf tiwo bi di saf mel ni dañ cee kii kaani ak nëq bi di metti moom kooku moom souvent infection la boobaa da dem ñu seet ko jox lay garab pour mu day moo tax age bi daal def ci am importance aussi mais lu mu ci man di doon daal tuur ndox bu jege yoo bu mu ëpp nga xam ne bala ngay yegg boo moytul mu tuur sa kaw rek problème am na ci donc nag mais il faut boo demee hôpital ci la ñuy xool ban genre de problème la parce que yi ko mën a indi xaw na bare tuuti te tamit mi ngi dépendre aussi ci âge bi ak circonstance yi donc euh, ñu ngi leen sant di leen gërëm di teewlu tam lépp luñ fi wax ci groupe bi di sant boroom xam-xam yi fiy jàngale ci wàllu diine ci wàllu àdduna lépp daal ñu ngi koy suivre te kontaan lool ci aussi administrateur bi sëñ Xaadim Diop ñu ngi leen di dolli gërëm leen sant di leen ñaanal fanaanu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, asalaamaaleykum euh, sëñ Xabaan euh, Diop ci laaj bi nga doon laaj léegi ci wàllu kuy naan ndox normalement ci bëccëg bi ba guddi gi muy mar naan mar naan moom foo ko defee rek naanal ndax euh, liñ naan oto bu chauffé ngay doog ci sotti ndox gënul wante nag fu mu chauffé war nga sotti ndox mar naan moom bu dee guddi tamit naanal ndax euh, wane nañ sa yaram soxla noo ko ndax euh, nit yàlla da ko bindee mu am ay régulateurs yoo xam ni fu mu soxlaa ndox rek Euh, dafay alerte mais nag nga koy jox avant mu koy soxla moom moo gën wante mar naan moom foo ko defee rek war nga naan ndox muy guddi muy bëccëg euh, bëccëg bee tam booy naan di ko réguler ni mun waree cest diir bañ di naan pot ndox ba mu jeex mais di naan par ndànk-ndànk boo toogee ba mu yàgg nga naan sa lu mat kaasu ndox loolu mën ngaa naan lu bëri te doo ko yëg donc mais mar naan moom foo ko defee rek mën ngaa naan Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa waxtu moo war xat rek mais ni dinaa la ci tontu bala may dem waa kay jërëjëf yàlla may ñu yendu jàmm incha allah dinañ tontuwaat xam naa bu amaatee yeneen laaj asalaamaaleykum wa waa ibadatu alxidma euh, ci jiital ci nuyoo bi Serigne Xabbaan Euh, di dellu ci laaj bi mbokk mi doon wax ci affaire poobar ndax gis na ni niñ koy jëfandikoo daal xaw naa bare muy laajte lan moo ko waral ah, man la docteur Ndiaye Diop ndaamaatu xëy na euh, man personnellement euh, duma ko jëfandikoo lu bëre mais gisuma tam Euh, particularité bu ci tax mu jar di ko jël ba ci jël lu ëpp wala kii ndax euh, poobar épice la daal comme ni ñuy wax saf-safal loo xam ni tam day relever goût euh, gaa moom bëri na njëriñ ndax baax na ci yi ñuy utiliser pour épice te boo ko jëfandikoo lu yem am na ay vertu tamit yu mu am ndax dañuy wax ni poobar euh, dina stimuler appétit ndax euh, day yokk tuuti li nga xam ni boo ko bu nekkee ci sa làmmiñ dina tax ba euh, kii bi tëflit yi gën a génn te loolu day bokk ci yi reesal dina tax tamit sa biir di sécréter ay acide yoo xam ni ñoom mën a jaxase ñam yi ñi nga xam ni dañuy faral di am ay colopathie nga xam ni biir bi day bëri ngelaw muy gurru gurri ak def ay ballonnement loolu baax na ci ñoom ci wàllu stimulant tamit gis nañ ni euh, dina yokk kàttan ci wàllu ngóora mais loolu ci ki nga xam ni dafa am problème mais xëy na ki ko amul euh, soxlawu ko mais yooyu yëpp li ci am solo mooy euh, bañ xam nan nga koy utiliser par doo ci ëppal daal baax na tamit ci souvent ñi nga xam ne dañoo soj wala seeni bakkan di fatt ndax euh, bokk na ci stimulant boo xam ne tam day déboucher euh, bakkan yi comme boo ci naanee comme ñi koy booleeg ay meew euh, def ci def ko ci meew poobar boo ci naanee ñi nga xam ne dañoo enrhumé seen bakkan di sakk baax na ci tam pour di déboucher bakkan yi daal wante nag koo xam ni dara jotu la amoo benn problème nga koy jël lu ëpp wala nga ci jël ëpp moom eh, xëy na am na effet secondaire ndax benn effet secondaire nag bi ci gën a eh, ràññeeku mooy koo xam ni am na estomac te souvent estomac eh, ñi bëri nañ ko am te xamuñu ko ndax souvent boo nee man sama tollook sama dënn genre olof yi wax souvent sama xol day mbékk metti souvent ñooñu euh, estomac moo koy waral donc kooku moom poobar waroo ko jege ndax day bokk na ci li koy yokk donc képp ku am estomac rek waroo euh, jëfandikoo poobar ndax daf koy aggraver loolu moom effet secondaire la boo xam ni moom ci poobar moom àndul ak estomac képp ku am estomac moom na ko moytu loo ko mën a moytu donc euh, ki doon wax daal ci affaire poobar daal loolu lañ ci xam euh, am na njariñ wante tam loo gis excès ba baaxul moo tax daal di ko yor ci ay butéel yu ndaw ak fooy dem yóbbu looy def di ci def moom defe ni du lu gën daal li gën daal mooy boo ko soxlaa utiliser ko boo ko soxlawul bàyyi ko asalaamaaleykum wa rahmatullah